voilà maa ngi ñëw si d'une manière générale def euh, bilan tuuti wax ne ANAMIS ñun la ko yàlla dénk depuis 2005 max ñi ma àndal donc ñu jàpp si bu baax jàppale ñu bu baax donc ñu gis ne yàlla mu ngi ñuy suturaal donc li ñu xam ne sumboon nañu ko. gis nañ ne bu baax avec le président Macky Sall jéego yu am solo am na fi donc euh, doon na jafe pour ki nekk Tamba nekk Ziguinchor mën a ñëw euh, ku bëggee faju day ñëw ba Dakar yàlla def ne bi mu ñëwee rapidement la def décentralisation des pharmacies donc ku nekk fa nga nekk fa ngay nekk nga faju voilà donc loolu si wàllu santé mën nañu si xuusaat si wàllu prothèse am nañ centre d'appareillage am nañ centre de médecine physique donc yooyu yëpp nekk loo xam ne au profit des des gens valides voilà ñuy sant yàlla si loolu donc point bi nga xam ne nag moo gën a am solo tax suñu gars yi yëngatu fan yi mooy pension mixte pension mixte dañ ko jagleel ki nga xam ne benn pension la am deful quinze ans de service ñu libéré ko donc kooku xam nga buy dund day dund si jafe-jafe parce que li nga xam ne mooy couverture sanitaire du ko am faj doomam jabaram bu fekkee ne am nañu euh, maladie donc loolu nekkoon nag lu leen soxal mais yàlla dafa def bi ñu posé le problème ba dossier bi dem comité technique ñun comité technique ñun duñ fa nekk donc c'est le ministère waa finance dañ ne mën ñu jël ñëpp donc finance bu ñu waxee loolu armée dafa dellu ginnaaw xool ñi nga xam ne ñoo les grands invités mu jox leen ko waaw ñu wax ne nag euh, mbégte la si ñoom ñu jot parce que suñu famille lañu donc euh, borom ñaari tànk wala benn tànk loxo yoo xam ne aussi boo xoolee deseetuñu lu ñu war a mën a liggéey donc ñooñu dañ leen di yéene lu ñu leen yéene xeeb ko voilà donc ay jullit nañu dëkku jullit la ñu nekk ñu leen koy yéene bu baax mais di ñaan président nag comme euh, ñëpp la waroon ñi nga xam ne defuñu quinze ans de service ñu dunde benn pension ñu koy ñaan tàllal ko loxo encore comme ni mu ñu ko defale woon ak premier ministre Mohamed Boun Abdallah ñu koy remercier bu baax si taxawaayam ñu fexe ba ñu toogaat li des ñu jéem a xool nu koy régler fexe daal ba ñëpp am ñi nga xam ne mooy pension mixte ñi nga xam ne ñoo ko war a wax. voilà ñi des boo xoolee du bëri parce que ñi nga xam ne defuñu. Euh, defuñu quinze ans de service ñu libéré leen bëriwuñu parce que armée après daf lay maintenir ba 15 ans nga am sa pension nga dem mais ñi jiitu daal boo xoolee day nekk rek si ay mois de mois de deux cent 250 ñoo xam ne war nañ ko mën a war nañ bénéficier wu cette pension mixte waa di ñaan rek euh, président ginnaaw bi ñu ko santé donc santé autorité militaire yi parce que bàyyiwuñu ñu ngi ñuy encadré ñu ngi ñuy jàppale. donc euh, di ñaan président rek euh, mu jëlaat dossier bi nga xam ne mooy dossier pension mixte yi ñi nga xam ne ñoo des ñu mën leen dalal euh, xamal leen ne nañ ko jot parce que droit la texte yi ñoo ko wax ñu ngi koy doo ko appliqué depuis 67 la ma yàlla def na aussi si régime président Macky Sall la sottee waaw donc mënuñu def lu dul remercier ko aussi parce que boobu ba léegi invalides yi ñu ngi fii mais mosuñu ko appliquer mu appliquer ko donc dañ koy remercier ak yu bëri yoo xam ne def na ko joxleen nañu 10 hectares de terre à Bambilor donc loolu c'est pas négligeable donc ñu ngi ko siy sant di sant ñu mu àndal ñëpp parce que bu la nit defalee lu baax je pense que euh, li war mooy nga sant ko d'abord waaw question bii des nag di wàllu pension yi lu soxal nit ñi la bu ñu gisee réaction nit ñi sax ñu xam ne lu leen soxal la parce que dund benn pension dafa dafa yëmbul benn pension nga yor njaboot fekk nga yor njaboot day métti waaw ah, donc président je pense que am na compréhension boobu am na boobu am na engagement bi pour la cause militaire gis nañu ko gis nañu muy doxalee pour militaire yi donc am nañ ci yaakaar ne incha allah dina dina si taxaw voilà donc la ñu amoon rek indil leen donc euh, si si ñu vingtième année ANAMIS donc euh, di sant yàlla bu baax di leen gërëm aussi yeen presse bi seen accompagnement depuis as ANAMIS taxaw merci ñu ngi leen di remercier bu baax. Thank you.